pour nekk des inspecteurs de la jeunesse et des sports te bi ñu réussir suñu concours ak léegi cela fait exactement mi ngi toll ci at ba léegi ñi ngi topp ci ginnaaw benn décret bi nga xamante ni président de la république moom moo ko war a signé te ba léegi kenn signé gu ko. gannaaw ay at yu bari yoo xam ne ñoom ñu ngi nekkoon di tàggatu ndaw yi nag ñu bari ci ñoom nekk ay borom kër di ñaawlu li nga xam ne nag mooy tekk-tekkaarulu autorité yi ci seen i ay problème nguur gi nag ñu daal di koy dànkaafu. jot na ñoo bind président de la république deux fois. bind nañ premier ministre bind nañ sax ba bind madame la première dame jot nañoo rencontrer ay autorités yu mag ci réew mi ñooñu ñëpp rencontré nañ leen mais ba léegi fi may wax ak yéen amul dara lu concret li nga xamante ni def nañ ko. bu ñu sukkandikoo ci ñoom ba tey ci domaine bi nga xam ne ñoom ci lañu nekk am na ay manquement yu bari loolee nag moo war a tax sax ñu daal di leen di jël ñu daal di dugg ci fonction publique. ndax li taxoon ñu organiser concours bi li ko waral moom mooy ministère de la jeunesse ak ministère des sports dañoo manqué ay cadres. toog nañ lu tolloo fukki at organiser wuñu concours bii loolu moo tax at yi passé ñu organiser ko pour recruter. xamle woon nañ ko ci benn daal dinañ koy def inspecteur de la jeunesse yi nga xam ne nak ñu ngi leen tàggatee fële ca INSEPT daal nañu soobu bu ki tey jii ci talaata ji suba si ci ab xiifal boo xam ne amul àpp ñoom nag fasuñu yéene dellu ginnaaw benn yoon ñu nar a wëyal li nga xam ne mooy seen xeex bii